ñoom léegi dañu bëgg waa Sénégal wér kon ñu dem xool yi Macron. salaamaaleykum bonjour oui bonjour bonjour bonjour salaamaaleykum. Euh, c'est Macron président de la France. Euh, vraiment, oui, je, je, je, voulais parler français, mais il euh, n'y a, pas de problème. Je parler wolof pour Sénégal ñëpp xam. yéen lan la loo leen di daw ba deenu yéen dëkk boo xam ne day day raam ñu koy may loxo pour mu jóg ne dee doo leen jóg yéen lii kay moo tax doo leen fanaane di naan waa li ngeen di naan foo leen koy tuux ah mais tout à l'heure Macky ma ne ko est-ce que Sénégal def am beneen Sénégal ci biir mu ma non Sénégal tu tu wax ak ñoom parce que man su ma waxee dañuy wax ni de eh, de au lieu mu wax ci lii muy wax ci lee waaye eh, eh. li ngeen eh, di naan fan ngeen koy tuur trente trente trois mille litres de vin ngeen di naan par weer ñun ñuy defar vin sax léegi dañuy ba si yàgg ñu commande Sénégal jeexagul balaa ñuy jeexal suñu commande ngeen ñëwaat di naan Singara wala ngeen di naan nii ñoom bu ñu xëyee suba teel xam nga def. seen kaasu attaay yi na ñuy def tuuti rek cof xam nga pour leen euh, pour fexi aadale aussi ak cosaan aadale ak cosaan kon di ngeen di xëyee suba te di saraxe aadale ak cosaan ñun buñ ko deful day mel ni ubbeeku wuñu yéen da ngeen di saraxe pour ubbeeku ñun dañuy naan tuuti pour ubbeeku waaye yéen ni ngeen di naanee lii moo tax accident yi mara deytaani di jóg seen dëkk bi ba pare bu commande France bi yéexee ñu defal ko defal ko seen bopp dañu koy defal seen bopp léegi xaaratuñu sax commande France bi ñoom ñoo xam ni ñu koy defee dañu koy nebel dañu koy nebel ba mu neb koko yi nañuy jël koko yi koko yi am ci bi ñu ñu ñu ko mu nekk euh, lu weex bi nu mu tudd je sais pas euh, sangara bu weex bi euh, kayu kayu kayu nga xam ne mandi léegi saw léegi dem kër léegi dadul yoon sax ngay dem tëddi lu tax ngay mandi man di kay samedi ba samedi doy na anniversaire ba anniversaire doy na war a yenn cérémonie grandiose yi mais lundi nga mandi dem sa bureau présent si ña génn yaa ci baax di mandi di nettali di mandi di nettali di mandi di werante ba ne cocc ba pare léegi génn wàll gi bu ñu mandi ci plateau yi dañuy dem waaw dafa am mandi plateau boo bu ñu la invité télé émission 18h wala 19h wala 20h yow fajar ngay mandi ngay naan pour mën a mandi di heure émission bi te doo taraf wax ju neex ngay wax dara fit loolu baaxul ku sànga bi wax loo wax loo boo waree wax te gisoo sàngara fooy waxee waaye li ngeen di naan foo leen koy saw. xanaa yéen seen dëkk <laughs> bi du amoon euh, diine yëpp dañu wax sax ni sangara euh, euh, c'est pas bon c'est pas parce que da nga nekk beneen religion que sama religion may ne ma ma que dama war a mandi est-ce que da ngay gis tubaab bu nan ba mandi ci mbedd bi bu dul 31 décembre fetu Pâques anniversaire mariage comme ça une fois dans l'année wala dans le mois waaye Dakar Dakar mais dañuy am ay policiers yu ñu yóbbu enquête foofu damay bañ a wax yenn quartier des Senghor à Dakar la gën a jaaree li ngeen di naan foo leen koy saw fan ngeen koy tuur leer leen jot naan ni ngeen mandi rek ni taraf boo leen demoo ci plateau télé mandi boo leen demee ci eh, restaurant yi mandi boo leen nekkee seen bureau yi mandi boo leen demee ci natt yi mandi boo leen demee ci tuux yi mandi te léegi xam nga li gën a bu fekkee ne fukki mandikat lañu yow dañuy wax parité léegi juróom benn yi ay jigéen lañu ñeenti ay góor lañu parce que ñeenti góor yi amatuñu fu ñu jëli xaalis mandi ci jigéen bu bëggee lijjanti mandi mandi mandi jigéen nag moo gën a bon dee baxul fu ñu toog curoy saw ne ne robinet man dey wax dëgg yàlla seen seen dëkk bi jaaxalem sangara lan la la mën a indil yow sax bu fekkee da ngay mandi nga yorloo naa ni ya xaalis boo xam ni waaye yorloo mën na di naan guddi ak bëccëg léegi ñun nag France on a décidé dootu ñu leen jox benn yoon sangara parce que euh, da ngeen di rey nit ñi rek ci télé bi xooloo histoire ci plateau yi am na ñoo xam ne bu ñu deful bi ñu nekk ci euh, seen jàmm loolu baaxul. di mandi rek di mandi rek di naan di naan dëkk dëkk dëkk dëkk boo xam ne euh, foofu euh, yàlla woote euh, jàmm foofu yonenti foofu nañu nekk dëkk boo xam ne Serigne Touba léegi Malick Limamou Laye Baye Niass Serigne yu baax yi fa nañu nekk lekk di naan di naan di mandi te gis nga seegu jigéen yi boo ci jubee ba jàpp seegu jigéen laal saag bi muy cardiaque parce que dañuy jël butéelu kii kii euh, eau minérale tuur ndox mi def ci sangara man dama max tuuti gàllax ndiku te ñuy mandi ci bi mandi jigéen ñi ñoo léegi li ñuy mandi sax góor mandi wuñ ko moo tax boo duggee doosu jigéen ñi da ngay mel ne concours robinet tur car mel ne kuy bàkku ci lemb li ngeen di naan foo leen koy tuux ah Macky sonn na Macky mënoon a lu mu def Macky pour ngeen bàyyi mandi butel bi mu ngi doon jox trois cent ci jamono euh, euh, euh, Senghor Ablaye Wade teg ci Abdou Diouf teg ci fukki dërëm mu jox 350 Ablaye Wade teg ci 200 mu jox 500 léegi Macky Sall teg ci 2000 bii léegi 2500 lay mais du taxaw dañu koy naan naan naan naan ba bu ñu mën dañuy xëyntu saw saw mel ne xaar buy mu ko tëbu dafa fóon ba pare. li ngeen di bay leen naan bi bay leen sangara bi bay leen sangara bi da leen di rey ngeen déedéet man di gudd yéen ay waa léegi d'accord maa ngi dee nii benn yoon mu jeex parce que j'ai pas de temps waaye léegi yéen xanaa gàmmu gi doole nan xanaa gàmmu gi nag di ngeen ruus yonent bi yéen ajjuma bi gën a sell ci sax ci ngeen di rakka ji boo demee baax yi ajjuma day mel ne tey la tey la bésu li ngeen di naan foo koy saw foo koy saw laa xamul inondation yi ngeen di wax yi du ndox mi taw bi de saw sulaa yi ñooy saw du si bu bu bu bu bu foos yi tëbee nga yaakaar ne ndoxu foos la ndoxu sangara yi ngeen di saw ñun nag décision prise c'est fini on vend plus le Sénégal des boissons alcoolisées c'est fini un point près arrêtez de boire